Sëriñ Tuuba xaada loxo laaw maxtaar loxo nee na bu ñu jàng sama xasida yi ku koy xerawlu fa ngay faloo doo ko fekke waaye ku ci dugal leneen fa ngay follikoo doo ko fekke siiw na xerawlu mooy diglu ak teelu su ko defee nañu xam ni xasida ak alxuraan ak xadis am nañu ak wuute lool te mën naa xam loolu moo di alxuraan sori na kaw lool ku nekk noo koy jànge noonu nga koy fekke ku ciy caaxaan muy say caaxaan ku ciy dëggal muy sag dëgg naka noonu hadiis yu yonente bi sallallahu taala alayhi wa daa ñëw ngir leelal alxuraan ak fi ñuy jaar ba mën a yéeg ba xam bëggu sunu borom xasiiday sëriñ bi xaadalowoo law maxtaarlowoo daa ñëw ngir tënk la téye la saxal la ci bëgguk sunu borom ak melow mu bëgg ni mel moo tax mu mel ni ku la yar li ko waral ku mu ku jugee ci moom daa sës ci boroomam luy jugee ci moom it noonu moo tax teggin yu ñu war a jox xasida yi moo war a ëpp yu ñu jox alxuraan ci bu wér su ko defee li ëpp ci murid yi loolu yi duñu ko xam ba tax ñu bari di am ay lor ci àdduna te fekk lépp ak ñàkk teggin moo ko waral wala xiyaasu billahi taala